yàlla dolli ko wér man mus xam nga fu ma xamee pouvoir ci président Macky Sall. pouvoir pouvoir pouvoir man ba ma juddoo ba léegi opposition laa mos a nekk. d'accord kii nag li ma topp ko dafa liggéeyal askan wi jig réew mi amab yar. mais ayam jeex na instant yii. déglu ma sa yoon nekku ci lii moo tax yéen journaliste yi <laughs> li ngeen bëgg ñu wate kenn du ko wate parce que da ngeen a far. yéen journaliste da ngeen a far ngarale ayam gu jeex sa yoon nekku ci. ah mais ñun ñu ngi toog ci réew mi di gëstu. di xam li xew ci réew mi nga ne ayam bu jeex. dama ne. te ñu war a informer askan bi rek baat bii mooy wane ne yéen journaliste yi. da ngeen war a bi dama ne askan boo koy informer xam nga loo koy informer. <laughs> waaw yow maa la jëkk ci média. <laughs> Père Khadim maa ci jëkk sa patron. man membre fondateur group Sud la ci laa bokk. d'accord di actionnaire majoritaire. Hmm. wax ci rajo 30 ans ak Latif Coulibaly le meilleur journaliste du monde. d'accord def télé 19 ans. Euh, kon xam may ma ma ñëw. waaw mais dama la ne. Hmm. askan wi bu ngeen leen dee informé doo leen informé ci invité nit bëgg mu juum ba ngeen teg ko pour ami vie. non non non may ma ma ñëw duñ def loolu. askan wi boo di informé da nga leen di informé ci tali bi toj na. Mhm. ndox mi ñàkk na. jàngukaay amul garab amul ci hôpital yi nit ñaa ngi rang ceeb wala nit ñaa ngi rang suukar wala ni élèves yaa ngi ay kaye mais yéen seen saa bu ngeen xëyee benn góor tey góor yëpp am gàcc góor yëpp tiit. ndax foo toog ñu ngi lay filmer di la saaga di la xas di la yàq loolu du rôle journaliste. Hmm. journaliste dafay génne lu baax. Ah, même boo invité nit sax. Hmm. laaj ko une heure de temps mu juum lam juum nga dagg ko. waaw ah, ñun loolu la ñuy def de ñun duñ def. du ngeen ko def yéen yéen ñëpp a yéen. ñun ay professionnels nga yéen. léegi xam nga leen dal journaliste yu ragal ngeen. journaliste bu ñëwewul kaso ku ñu ragal ay tappit ngeen suñu mbokk a ngi nii instant yi kaso euh, euh, nu mu sa Pape Alé Niang mais lenn kaso bi grève de faim bi Pape Alé la ko gën a xam maa ko recruté man sud way ñu ngi may dégg créé sud malier moom Pape Alé Niang Ndeye Mariam Ndiaye Issa Niang Ablaye Cissé yaa ngi dégg mhm. ñooy juróomi nit yi ak ak ak ak ak ak ak Ndeye Mariam ñoo tax ñu créé jeu de banlieue man maa ubbi inauguré ko ak sous-préfet bu Pikine à l'époque d'accord yóbbu leen fa formé leen ñu génn ci égique suñu école hmm. kon maa leen a xam Pape Alé xam la ko jële sud xam la ko jële deux mais liñ ko teg ni liñ injustice la nangu nga loolu xam nga lu tax dama la ne li ko liñ ko teg ni ne Macky Sall sa mën a ci injustice la boo waxatee boo tu boo waxatee. le président Macky Sall. way soo ko waxatee du ma damay jóg. d' accord le président <laughs> Macky Sall. dama la ne. Uh-huh. dama la ne. Uh-huh. Pape Alé suma rakk la suma jarbaat la. Uh-huh. maa leen ko gën a xam. maa leen ko gën a yërëm maa leen ko gën a bëgg foofu. ba ma koy xam xamu leen ko ba ñu koy defar nun pièce par pièce boobu yéen fu nekk mais boo bëggee politique da ngay def ni Latif Coulibaly wala nga def ni xele bi ñu doon yuuxoo démb. kon Pape Alé Niang euh, day day ano ah déglu maa ngi ñëw dama la ne ah, journaliste. soo bëggee pol da ngay. summi mooy mooy Pape Djibril nga bëgg a wax. waaye da ngay summi sa mbubbam journaliste nga dem politique yi mu leer nañ mais bëgg di politique bëgg ne journaliste nga lu la neex nga wax far bañ xam ko di wax a bañ teg la loxo da nga koy assumer. mais écoute papa papa yaa ngi wax naan xamuñu fekke wuñu mais aussi ci luñ jot a fekkee akas new le président Macky Sall mii nekk fii tey tey tey Pape Alé bi muy nekk ci mbir yi mu nekk nii ba tey dafa dafa yàgg a jàppale le président Macky Sall. da ko yàgg ko parce que boobu jamono Pape Alé amul site. soltu la am ñi di ko fay su FM di ko yónni. ñaata la ko invité ñaata la ko invité. mais écoutez Pape du Pape Alé moo ko doon invité Latif moo koy jox ndigal wala Omar Diouf Fall comme ni ñu koy joxee mais arrêté wu quand léegi léegi maanaam Pape Alé Niang su ma la déggee bu baax a baax dafay politique fan lay politique ak kan lay. tudduma turam ci loolu dama la ne. ah ne dafa a summi bu politique am bu journaliste bu bëgg a politique. da yi ngay maanaam du leer. maanaam da ngay da ngay wax mais ba ba dollo mbaab mooy àgg ci mooy àgg ci nee bi mais loolu ñàkk a assumer ses responsabilités aussi ak ragal ci looy wax la. dama ne journaliste bu bëgg politique da ngay summi sa mbubbam journaliste waaye làqu ci télé yi ak rajo yi and ki nit di delew sa ay jàmbur di xas ndeyi jàmbur di saaga bàyyi jàmbur. koo fi gis am na doom am na ndey am na baay. kon ànd nga ci li ko dal nii kon. non loolu sama yoon nekku ci maa ngi koy ñaanal mu génn ci dama ne daal grève de bi moo ma moo ma moo ma soge. accord parce que. Khalifa Sall deful grève de faim. d' accord Idrissa Seck deful grève de faim. Boubacar Diop sunu mag yàlla ko yàlla. xeex kat bay xeex loolu moyen de lutte la. grève de faim nag dama ne leen euh, man bu ma bu ma yàlla nattu woon ba ma dugg kaso su ma naree def grève de faim dee. grève de faim mooy yokki. Hmm. daaw daw la. dama la ne. Pape Alé Pape Alé Niang dafay daw kon yaa ko wax. en direct moo tax turam ah, ku ko mën a def ku def gerte ku nekk ci biti. di dawal say oto yu jar cent millions di doxal yor say jabar ak say doom di wax te journaliste. dafa war a xaar kaso. moyen de lutte la may ma ma ñëw. grève de faim may ma ma ñëw. journaliste dafa war a xaar kaso xaar dee xaar armelia moo politicien yam mais dama la ne. su fekkee Pape Alé Niang bu ragaloon xam nga du delluwaat bu ragaloon du delluwaat kaso ba yow comme ni nga ko waxee yàgg xam nga Pape Alé ñaa xam nga ko bu baax a baax depuis sud ba léegi nii xam nga Pape Alé Niang ragal la wala du ragal. néew ma ragal la de. ah mais écoute boo boo toogee fi en direct ne Pape Alé Niang. non déet tudduma turam. yow yaa ko ko bëgg a waxal yaa tudd ci moom la ñuy wax. dama ne waxuma ci moom la ñuy wax instant waxuma ci moom. parce que sookewu ma ko turu kenn indiwuma fi yaa ma invité ci actualité yi xew ci réew mi. ma di ci waxtaan ak yow. d' mais Pape Alé Niang quand euh, vraiment ñun en tant que journaliste koy ñaanal mu génn ci kaso bi. dara am na sur quatre am na journaliste yoo xam tey bëgguñu mu génn. ah bon oui. da nga cee xam dara yow. du jeex. kan ak kan la. du ma tur. am na journaliste yoo xam ne biñ ko téye dañoo dugg seen néeg di fecc journaliste yi ñoom ñëpp solidaire dégguñu ba kañ ngeen gëj a wax ah maa ngi nii di wax ci moom la. yaa ngi nii mosoo taal sa oto fekk ko Sébikotane mosoo koo def te boo doon seet tey soixante dix pour cent defuñu ko. Ousmane Sonko dem na seete ji ko. kooku kooku nit ku baax na maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla dolli wér yàlla may ko gudd fan. yàlla jàppale ko yàlla taxaw ko parce que loolu mu def lu rëy la. mais yéen mais yow defoo ko yow mi ko yow mi ko tàmbaliloo ba kii. bu non non non demuma parce que parce que ci wax yi. Hmm. su ma doon laaj dinaa ko ne deel wax lii di yéen fii. mais doo dem fa fekk ko fa waxtaan ak moom pour. gindi non du ko seeti parce man bi ñu ma dàqee seeti si ma waxu ci. bi ñu ma jàppee seetu ma waxu ji. da ngay defante quoi. noo defante wu ma. ah man ceddo laa. boo ma tooñoon léegi fii ma sampale jaagalu xeex. barke rasulillahi <laughs> déggoo may la boo tuddul soo newul président ma jóg dem sama yoon. monsieur le président de la république. absolument d' accord. voilà alors euh, Ousmane Sonko moomu noonu dañ ko juñ wàllum siif ba jamono jii dossier bi maa ngi dégg sax ñu naan procès public ak ñoom seen lan mooy sa jàngat. du ma ci wax parce que dara leeruma ci. awma ci dara lu ma leer. dara leerul la si. dara leeruma ci barke moom Duru. xamoo déggoo Adji Sarr wala Ousmane Sonko yooyu. dara jëy rasulillahi dara leeruma ci. bañ naa ko ba man dootuma déglu rajo dootuma seetaan télé tuma liir journal. mais dafa dafa dafa parce que li xam nga dafa maase wu joon man dama déglu ma dama la ne. Hmm. man dama bëgg di dégg lu baax. Ousmane daal maa ngi koy ñaanal gudd fan. ah mais dafa dàmp lu joon yaa fi wax moo dàmp. dama la léegi dama laa àbb sa dàmp boobu noonu. dafa dàmp lu ji ci benn salon. bi mu fa dàmpalu jee ñu jiiñ benn soxna suñuy wax aji Sarr jiiñ ko ci comme que nee nga yow comprendre ko ma waxal la ko ndax Sénégal yi ñu seetaan xam nañ ba xam nga wala xamoo ndax amul kenn ku fi nekk ku xamul ne Adji Sarr dafa tuumal Ousmane Sonko. xam nga tuuma alali gor la tuuma alali gor la mais ma ci wax ndax dara leeru ma ci. d'accord mosuma cee wax ba yëf yow fii du ma ci wax complot bi Ousmane Sonko di wax ko ko def Macky Sall la ko comploté yow loolu noo ci wax. loolu dara wóoruma ci. Mamour Diallo ñoom ñëpp aussi. dem gis nga ñooñu xanaa xamoo ne kooku sax buñ dajoon xaw ma ko tey Mamour boobu ngay wax. d'accord buñ dajoon tey xaw ma ko ci mbedd. dama la ne dossier boobu xam nga lu may ñaanal président Ousmane Sonko. Mm. yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér defal ko tam rek ndax reeru mol mm. lu mu yàgg yàgg dana yëg ci kàttani yàlla. ci moo tax ngay xa moo tax ngay waxee ni ngay waxee ni ndax yéen moom ku ñëw ma waxee nan. ku ñëw nga ànd ngeen ànd moom. non man dootuma ànd kuy def politique ci àddina ku dul Macky Sall. ah bon même bu Macky Sall wàccoon tey ji pare nga ci. dama ne billahi wallahi taala penku laa jublu jël leen ko jël leen ko. dama la ne ci Macky la ay mujj a tàccoo nit ci Macky la ay mujj a teeroo nit ci àddina man yàlla teral na ma man dootuma jënd billet bu may dem Makka. vaara nga ci ah, déglu ma dama la ne. xanaa ku am fon ku ku ku njox fonction dama la ne man. Ah, mer nga du ne nga ne nga mer mais man fonction ah, éternelle laa yor du ma fek fekk àddina yi dox jëndatuma billet Makka tuma dépasse. fayatuma courant fayatuma ndox dootuma jënd oto su may dem France dootuma jënd billet su may faju dootuma fay mais lu ma yàlla deseel may tàccoo ci nit te man mag laa léegi waaw ah, moo tax waroo ànd ak def ma ni loo gis nga waroon a toog nag fii bañ a ànd ak Macky Sall di wax ay dàmpaloo ah non non Macky nag ba géej gi léegi léegi jeex na